له سكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أشكره شكر الذين شربوا من عذبي وللجنان خربوا حزت حياة لا ترى لغيري معجزة بانت لحزن خيري يجود للجواد بالجياد وصول لي يكون ذا انقيادي أحياني الباخي بلا يماتا ولا تنازع ولا شماتا أعطاني الباخي الكتاب الأعظم ولا ألاخي كل من تعزما anni jaza walidati wal walida xayran kasiran la yasalu xaalida nafaani bil mustafa al musafai alaytani ma nafa al anfai daa xilaamiya ila sukuuri man saqara lil xalqa baqa iza man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 رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير صلوات الأعلى سنت له أبكار أمداه لدى من جيل سأني وسف الخلدا قلبي سفى بكون ربي خلي حبي ولي جعل كسرا خلي وجه لي حلاوة الدارين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 mbokk yi noo ngi am mbégte di ànd ak yéen ci jataay bi nga xamante ne bii ñi ngi ko amele fii ci kër Serigne Touba Xaadimu Rasul gi nekk ci jumaa ji ci liggéey bi nga xam ne euh, Cheikh Mahamadoul Mountakha xalifa général des mourides jox na ko sëriñ Cheikh Anta te joxoon ko ko ci bi ñuy toll ci màggalu Touba gi waxoon ko na ko bëgg naa nga dolli ci bâtiment Serigne Touba bi beneen néeg bu ànd ak waañ ak ay toilettes waaye nag Eh, loolu lépp nag mu war a ànd nag ak mbaaru mii nga xam ne Serigne Cheikh mu sëñ Abdou Latif fi lay tibbaatee ndoguy Baye Fall yi muy ñaari étape liggéey boobu nag xam ngeen ne mm, door nañ ko ci àllarba jële weesu tey jii war a toll ci juróom-ñeenti fan ci sànc bi eh, ñun ñu nekk fi ci liggéey bi eh, tey jii yamoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre. dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmmu wi bâtiment bi xam ngeen ne première étape bi mooy néeg bi ak euh, waañ wi ak toilette yi loolu moom ñi ngi ko fas yéene kuule tey incha allahu rabbi gaa yaa ngi yéegal birig yi euh, coffre bi mi ngi coffre bu noppee nag ñu soog a jël ci faasu ñaareel bi loolu nag euh, la Serigne Cheikh woote woon woo ci njabootu Serigne Modou Rokhaya gépp waaye woo ci képp koo xam ne lu baax ñor na la ndax xam ngeen ne bâtiment bu mag bii Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko digaloon Serigne Modou Rokhaya ci ay jamonoom mu ànd ak ay rakam liggéeyan bâtiment bi ba mu noppi waaye xam ngeen ne ci jamonoy Cheikh Salih eh, yeesalaat loon na ko Serigne Modou Rokhaya ginnaaw Serigne Saliou Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar joxaatoon na ndigal Serigne Cheikh mu yokkaat bâtiment bi ci hauteur bi yokkaat yaatuwaay yi néegi yi ak toilettes yi waaye décoré waat ko mébale ko. loolu lépp itam Serigne Cheikh defaraatoon na ko ba mu noppi waaye nag Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha bi mu gisee ne jamono day dox mu ne nañ fi dolliwaat beneen néegu gan dolliwaat fi aw waañ dolliwaat fi li nga xam ne moo di ay toilettes loolu nag dañu ko tolloole ci plan bi moog garage bi ñooy ñooy nuroo euh, architecture nga xam ne bâtiment bi daf leen di tiim ñoom ñaar ñëpp ni garage bi mel ne la néeg yi mel bu noppee ndax garage bi moo féete ndijoor xam naa ne sunu caméraman dana leen ko wan. kon ñun waruñoo dencal dara ëllëg te nag bâtiment bii ku ci def saw ñaq ba ba àddunay tukki kër Serigne tubaa day dox xalif général des mourides daf fi far di wéy di nekk te xalif général bu fi man di nekkati ci àdduna ci bâtiment bii lay dëkk loolu nag fexe ba sa dara ne ci ba bu ëllëg si biiree fa sëñ tubaa di dëkk nga mel na bokk naa ci ña fa def dara loolu lu am solo la loolu nag ci lañ tollu tey jii fas ko yéene ànd ak yéen rek di xamle rek ne liggéey bi ni ko borom waxee woon moom lu ci waay di joxe wala ku ci bëgg ak leeral mën ak moom directement. ci 77 644 63 03 wala 877 64 64 loolu mooy ñaari numéro yi sëriñ bi nga xamante ne bii moo coordonné liggéey bi kon nag eh, mbokk yi damay ànd ak sama caméraman dugg ci biir wan leen liggéey bi rek jaajëfal leen ñaan sun borom subhaanahu wa taala mu may ñu ñu ñu ñu noppi ci fab loxo caabi ji teg ko ci loxol sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha mu dëkk ci lu yàgg lool. te joxaat ñu yeneen digal ñu ànd koog moom liggéeyal ko liggéeyal ko ko ba mu àgg ci ginnaaw Serigne Cheikh Anta di ko ñaanal suñu borom moom it mu gën a guddal fanam gën a doole ak wéram ñaanal ñi ci xëy ñëpp ak ñi ci def seeni ñaq yàlla faj seen aajo ci barke Sewal Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.